dali nay jàmm ñu ànd xëy yér yéenekaay yi nga xam ne moom la ñu xëyandoo njiitu réew mi di président Macky Sall daat nay deltu ginnaaw delloo na avance ci nag dogal yi nga xamante ni jëloon na ko ngir xeex woppi coronavirus ni kii démb daan nay def ab discours daal di koy jagle la askan wi daan nay wax ne virus bi nga xamante nag mooy covid 19 maanaam lu naqare jële la ci réew mi te ni nga xam ne moom lay lawee bu ñu ko toppee nag mën na nañoo yóbbu ba août jàpp septembre moo tax njiitu mi di président Macky Sall nee na nag jamono ji daal nañu si yéene jàng ana nan la ñuy dundee ak virus bi apprendre à vivre avec le virus noonu la ko njiit réew mi di président Macky Sall xam leen ni kii démb yéen kaay gi mu ñu xamal lan ñu Sénégal yi nag jamono ji seen responsabilité la waaye nag yéen kaay groupe promo consulting bi mu ñu xamal lan ñu sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk ca bitim réew jamono ji nag ñoom daal kontaan nañu ndax nag dañu leen a waxoon na leen ku fa faatu fa la ñu lay daal di denc loole nag Macky Sall daana cay deltu ginnaaw lu jëm ci wàllum jàkk yi ak jumaa yi Macky Sall nee na nañu ko daal di ubbi couvre-feu bi nga xamante ni vingt heures la doon commencé léegi nag vingt une heures ba cinq heures du matin la lu jëm ci wàllu marché yi nga xamante ni nag maanaam dañu leen doon may bis yu ñuy liggéey Macky Sall nee na marché yi nañu ko ubbi ñuy liggéey juróom benn fan benn fan rek ñu daal di koy nettoyé lu jëm ci wàllum école yi nag nee na ñi nga xam ne ñooy def examen CM2 BFM bac ñooñee nag ñaari fan ci weeru juin mën nañoo daal di jàngi njiitu réew mi di président Macky Sall daan nay wax tamit luuma yi ñu daal di koy tijji marché hebdomadaire yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw gi yéen kaay gi de la témoin mu ñu xamal na ñu li nga xam ne nag moo amba ba des bu ñu waxantee dëgg mooy Macky Sall dafa daal di deltu ginnaaw daw laka ko waral mooy kilifa diira yi nga xamante ni ñoo ko daal di dànkaafu wax ne danañ julli par force yéen kaay gi de la turbine xëy nag di ko daal di dëggal di wax ne Macky Sall dafa daal di joxe avance delloo avance ngir na kilifa diina yi nga xam ne maanaam ñoo ko tëkk taxawal daal di koy arsa la yéen kaay di Vox Populi mu ñu xamal nañu nag Macky Sall joxe na autorisation ngir askan wi di circuler maanaam di tambaambalu di jaba jonge ak woppi coronavirus yéen a kaay gi du l'observateur mu ñu xamal na ñu am na juróom-ñetti experts yoo xamante ni maanaam càmbar nañ discours Macky Sall bi waaye nag lañ sa gis daal mooy ay incohérence ay contradiction yoo xamante ne yu doy waar la maanaam loo xamante ni daal méngawul benn yoon te xel si boppam moo ko mënut a nango jamono ji nga xamante ni virus bi ma ngi jaaba jonge ci réew mi di gën di bëri di gën di rey nit ñi jamono joojee ci la Macky Sall daal di deltu ginnaaw yéen a kaay gi mu ñu xamal na pression bi ci boppam maanaam moo bëri ci moom te nag askan wi demoon nañ ba nga xamante ni attanatuñ li nga xam ne maanaam moom lañ leen yan jëm ci wàllum économie ndax askan wee mujjoon sonn loof loola yéen kaay gi du l'observateur expert ñenn ci ñoom daal di wax ne bu ñu xëyee nag hôpitaux yu fees dell dell dell dell bu mu bett kenn yéen kaay gi nee na en tout cas yeewu gi daal mën naa doy waar giraawaali musiba ma ba kumba mën naa dal Sénégal yéen kaay gi ñu fekk fa may sababu économiste la mu xamle nee na li nga xamante ne mooy oyofal gi Macky Sall def loole loole lu am solo la ci économie réew mi yéen kaay gii di réew mi quotidien mu ñu xamal la ñu lu jëm ci wàllum transport interurbain ba léegi nii nag Macky Sall waxu ci lenn te bëri na ay élèves yoo xamante ni maanaam nekkuñu ci seeni région am na nag ay baykat yu bari tamit yoo xamante ni ñoo ngi coincé maanaam ci ville yu mag yi laas yéen kaay Aly Ngouille Ndiaye la mu xam nee na ba léegi nii daal ñoo ngi tere maanaam interurbain bi yéen kaay gii di la turbine mu ñu xamal la ñu église bi ñoom la ñu xamle daal ba léegi nii daal fa ñu nekkoon jógee wuñu fa mag nag lu dal am xelama Abdoul Mbaye moom moom nag la mu daal di xamle nee na bu ñu waxante dëgg gouvernement bi ci boppam ñoom ñoo démissionné te lii nag lu ñaaw la yéen a kaay gii di réew mi quotidien njiitu réew mi di président Macky sal ne dinaa nag séddale lu toll ci fukk ci ay millions yi masque yéen gi nag di laasa ñu fekk fa Marie ngoom Ngom ya moom nag démb dafa daal di mer ba maara day taali la ko waral nag dafa am ay produit yoo xamante ni ñenn ñoo ko daal di jël ne dafay fàcc Covid 19 police Interpol moo ko daal di wax Sénégal Marie Xemes Ngom Ndiaye daal nay naqarlu bu baax baax waa ministère bi nga xamante ni ñenn ñi dañu leen di daal di ŋàññi nee liggéey bi nga xamante ni def nañu ko ba mu egsi fii maanaam walaay bu ko kenn yàq yéen a kaay groupe Promo Consulting bi mu ñu xamal naa ñu musiba ma bakumba bay boo daal ñu daal di koy séentu ndax am na juróom ñetti nit ñoo xamante ni maanaam ñoo ngi réanimation seen wàllu wér gi yaram dafa daal di tàgga témbe doy waar loola yéen a kaay gii libération mu daal di xëy nag ci médecin yi nga xamante ni ñoom ay jafe neen la ñuy dund bu paasee nag sonn gi ñuy sonn ak nag wàll gi ñu leen di wàll jàngoro ji ñoom médecin yi ñenn ñi dañu leen di faral di dànkaafu ndax médecin chef bu Vélingara kooku dañ ko menacé de mort médecin chef bu Mbour kooku nag dañu ko tuumaal ne dafay manipuler indi jalgati ci test yi nga xamante ni ma ngi koy fësala bu dee nag médecin bi nekk ca Toubacouta kookee nag dañu ko dàqoon saaga ka daal di koy xas libération yéenekaay ne lii nag dafa daal di ñaaw loola yéenekaay gi du l'Observateur mu ñu xamal naa ñu Kalidou Fadiga mi nga xamante ni dañu ko confiné woon maanaam quarantaine ko ci diwaanu Tamba daat nañ koy bàyyi mu ñibbi stade yéenekaay ci Kalidou Fadiga si xëy moom mi nga xamante ni nag pied magique la ñu ko doon woowee tànk bi neex lool waaye na xol bu oyof la yor journal bi dikk na si jaar jaar yi ak li nga xamante ni moo ko yàqal carrière